ñëw <laughs> ñu xët la. ayca tey looy euh, tey. ànd ak ma yuuxu. <laughs> bilaay ma nuyu yow <clears throat> sama yàlla la ñu waxal. tey dañuy ci xale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi seen néegu sëy bi est-ce que doo ma dégg te bàyyi sukaa man lay déglu sukaa daa moom. xale yi nga xam ne ñu ngi seen néegu sëy ma nii de yuuxu. waxuma yuuxu yooyu ngeen di xalaat de. bu yéegee plateau bi yuuxu boobu ngeen di wax laa xalaat laa ah, ah, waxul. Ah, xalaat dara eh. didi yow yaa moom <laughs> waxtu waa ngi dem de. xale yi nga xam ne ñu ngi seen néegu sëy mën na luñ dara seen bopp ah, dañuy faral di gis ne seen borom kër ñoo leen di fayal seeni liggéey ñoo leen di fayal seen i jàng ah, ba ñu commencé am métier commencé am liggéey am seen salaire commencé di leen diir mbagg des fois sax ñu leen ci sànni yenn baati loo def ma def kon nag ah, kàddu gi ñoo ko bokk te mhm. dafa nekk loo xam ne kër bu ci bu ci boo fa nekkee di sëy ku góor ki moom moom kàddu gi ndax mhm. mooy sa kilifa mhm. loo ko ëppale ëppale ëpple benn kàddu moo fa moom moo ko am muy moom yaa ngi dégg mais da gis léegi euh, nga nekk ci ci sëy mënuloo dara sa bopp mu dimbale la ba nga am yenn yi sax des fois da gis ñu war la mhm. parce que danaan ah kii nekkatul sama size waaw mhm. nekkatul sama size naa dem léegi xool keneen mu jaral la sax nga tas sa sëy dem xooli keneen après loolu dafay nekk genre wor te nag nee nañ ku war ren mu jig la déwén xamal ne dañ la koo jiñoon di yow ki nga xam ne moom nga gis tey ba war sa jëkkër amaana nag boo demee ba ci kanam bu fekkee yàlla gëmul nelaw te yàlla léegi weeru ko weer bi lay xaar mu dee rek mu fay la sa bor <laughs> la nga leb la rek nañ lay fay balaa déwét di nga gis kooku tam war la def seet sa morom kon la ne xoolaat jikko yi xoolaat jëfin yi jëkkër bu morom mm. jëkkër sang la tey damay faral sama mm. ñoom tey góor ñi nga faral tey góor ñi laa faral. d'accord yow mbaat da meeb. ma ne ko mbaat da ngay meeb. loolu am na meeb lu ko dee. non si si si cadre bu ñu waxee la tey rek tey moom yéen a moomee si li nga wax nii no dëgg la saa. am na beneen dëgëral saa na dëgëral bi boo ko moytuwul ma lambal sa bopp dëgg jëf. ma xam ne saa xam ne de man tànk ginnaaw ma ko. thème bi waxee la rek. c'est la plupart yu mel noonu li ci li koy indi. jigéen ji nga xam ne si borom këram fayal na ko ba mu dem ba am liggéey commencé di diir mbagg. Mhm. lu ciy ëpp du jóge ci moom sax mais mën na jóge ci fameem <laughs> ñu commencé indi yenn xalaat yi commencé ñoom famille ci boppam ñoom ñooy njëkk xeeb fàtte dañuy fàtte lépp loo xamante ni. waa ji defoon na ko ci jamono yi nga xamante ni bii mooy période vache maigre ah. <laughs> ci jafe-jafe yi nga xamante ni bii ci la nekkoon. léegi ñoom li ñu gis rek mooy seen doom ji tekki na kii na te buñ ko bàyyeek waa ji mu aaki mooy ko euh, jariñoo alal jeeg loolu te xamuñu waa ji def na ci moom loo xamante ni bii lu kii la léegi nag ñooy commencé nag di dugal yenn yi sa jëkkër ji seetlu nga ko kii daal dafa mel ni dafa kaw kii kii est-ce que mhm. sa saayes la kii nga mhm. xamante ni kii boo ànd ak sa xarit yi ñu ànd ak seen jëkkër yi classe bi ñu nekk moom nekkutul ci classe bi fekk jëkkër ñëpp peut-être mën na nekk sax mhm. koo xam ni ouvrier la wala dara mais doon ñafe di dajale dara di la jàppale di la fayal di la encadrer ba nga xamante ne mën nga nag léegi nag nga naan non yow kii sa du sa classe il faut que nga am ci intellectuel yi il faut que nga am ñi nga xamante ne bi yéen a bokk niveau waaye kii gis nga ko bu ñëwee jee nañ ko fi sax en théâtre mhm. <laughs> waaye ñu ñëw ñaa ko sa tëri te li bu ci daj euh, pour euh, jàppale li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, ndaw si nga xamante ni si moom la nekkoon la plupart yu mel noonu ci ñooñu lay nekk mhm. mais tamit bu fekkee xam nga tamit li ñu naan tànk boo gis kiiwu waaye nga te ndaw si war na mën a xam ne ak lu ko ñële mën a wax wéet na wéetaay yoo xamante ni moom ak jëkkëram dong la mm-hmm. mu diis ko ay soxla mu yëg ni jëkkëram bàyyi na ay mbiram yu bari ngir taxaw ci ay mbiram mm-hmm. ki la mën a loolu nag il faut que nga koy bàyyi xel baax parce que loolu yombul mm-hmm. attention jigéen mën nga amaat beneen jëkkër mais est jëkkër ju mel ni ki nga xam ni taawu na la teg la fi mu la war a teg nga bàyyi ay yitteem ngir say yitte mm-hmm. ba tey yow nga mën a def mm-hmm. nga wëlbati ko bàyyi ko fa yaakaar nga li nga daje waaj ak beneen góor mën nga daje rek jigéen góor ju am mm-hmm. mais est-ce que kooku nga am mu am est-ce que bokk naag li kii am kii dafa am lu mu am de parce que li mu am noonu <coughs> te nag loolu moom nga gën a soxla ko alal il faut nag jigéen ñi def attention ci loolu bu baax a baax mais dafa am foo wax sànq nga ne Euh, amaana seen mbokk yi ñoom ñoo koy xañ loolu ah, di ko di ko di ko di ko pousser pour mu mm. divorcer ah. na dama naan nanguwuma foofu parce que des mm. fois di nga gis xale bëgg nit yaayam ak baayam ak mbokk yëpp ne ko doo doo ànd ak moom wala doo te terewul day nekk moom ah, parce que foofu amour mu comparaison n'est pas raison wax ne la amour mu mais ça nangul ko li wax non mais c'est que xam nga li mu wax xam nga li mu wax am na ci beneen contexte la xam nga dañu nekk ci benn contexte boo xamante ni moom la ñuy analyser ne lan moo koy waral dama la wax ne lii li koy waral influence su kii mën na ci mën na ci mën na ci lool mën na ci mën na mën na mhm. influencer mhm. que ni loolu lenn la ci. yaa ngi dégg loolu boo bëggee taxaw nga ne ma da ngay gis kii boo xamante ne bi kii. <laughs> loolu ñaar yu bokkul la quoi. dafa indi ñaari yoo xam ne bokkul soo ma dégloo nga comprendre. parce que tey bu fekkee nit ki gore na bëgg na ki muy ki muy nekkal ki muy sëyal tey ak lu mbokkam yi mën a wax du ko tax mu dellu ginnaaw. du leen déglu dañu waxante dëgg. non xam nga Didi yaa ngi indiwaat ñaar yu bokkul. ankay ah, non bokkul. parce que fi ngay waxee laa lay wax koo xam ne. non c'est xam fan la amee problème. non xam nga moom moom moom Didi nga xam ne day def loolu. man pour indi lu ma non c'est problème mu Didi xam nga mooy c'est que da nga indi wala indi woo wala tem da nga indi tem ne ki nga xam ne dafa def loolu waaw mais li mu indi dafa wax ne ki def loolu loolu na ba pare waaw la wax bu la ma bu ma indi wax leneen mais yow da nga ne dafa wax lu am ba pare mu mu ne lii ñu jàngat ci léegi ñu jàngat mu bëgg maa indi leneen man dama wax <laughs> non non man dafa wax cause day da nga indi cause boobu da nga ni da nga ni da loolu mën na am waaw nit ku mel noonu léegi lan moo indi laa la influence waaw dama ne loolu boobu mën na influence extérieure nag ne pas dire que ni parents yi kese la mën na nekk ay xarit voilà voilà mais xam nga moom li mu wax xam nga la problème bu Didi Didi dafa indi problème mu jàngat problème mu génn problème bi indiwaat leneen lu bokk mais problème bi am na ba pare wala li ngay wax dafa am ba pare wala amul dafa am ba pare ci loolu lañ ne nag xam nga da nga cité benn cause kii yërëm naa ko ah mu naan ma da nga cité benn cause yow da nga war a que bu am la ñu ne lan moo koy mais waaw wala waxuñu lan moo waaw lan moo koy indi kon lu am am na ñoo xamante ni nangam ak nangam ñu jàngat ko moom loolu la wax. yow saa c'est ça le problème indi moom lu mu wax rek ay am loolu mën na rek mooy amoo yoon quoi mais nelaw moom. yow yaa nelaw nañ eh? jox Omar nañ jox Omar waaw. Omar nit bu goree rek bëgg ki mu bëgg gore ba xëy dee amul lu mbokkam di wax te du ànd ak moom. dëgg la xam nga yow yaa ngi wax ci kaaw ku gore Omar dafa nekkuñu ci kaw ku ko rek ku ko xas def ba pare la. waaye ku ko def ba pare loolu. dafa mel ni mel c'est ça le problème. xaaral <laughs> ngor amatu fa. loolu moom nañu exclure ngor. voilà mais cause. très bien lu andi cause moo jiitu. waaw cause waaw d'accord cause moo jiitu. moom ki ko def ba pare. foofu moom waxu ngor moom c'est exclure. kon léegi léegi waxi ngor amatu fa. léegi lan moo waral mu def loolu nag léegi nag moo tax ma ne la la plupart mën na nekk influence. waaw d'accord léegi nag mooy waaw léegi yéen bu leen monopoliser kàddu gi xalaatam ba xam. Mhm. nelaw na. day participer wala am na góor ñi. kii góor fële caméra day participer wala. góor ñi góor ñi rek day di joxe. xaaral ba nga Omar ay ca eh, mhm. góor ñi mhm. dañuy jàmbaar. des fois yàlla boole la ak soxna. mu doon ab euh, raspac. luy raspac yow it ras mbaas. Hmm? ras mbaas lii bi ngay ñëw lii fekk ko peut-être que. ni mu war a toll toll li mu war a am amu ko nga nekk cay xontu lu nga dugg ci. waaw ah, dëgg la. di fay njàngam mag mm-hmm. même bu dul njàng sax mais nga yor ko yor boo xam ne yaa ngi jëm sa képp laay kattan même boo baree mm-hmm. mu dem ba bis avec le poids de l'âge jigéen day toll foofu benn waaye nee na fekk dundoo leen 15 ans ba ba mu a faaj rek moomagoo ko. macha allah. léegi nag am na fi muy toll day jàpp ni moom alalu borom barke la. bu dee yow sa barke eggul benn niveau bi moom am na fi muy toll day jàpp ne alalu borom barke la mhm. ba fàtte moom fi mu jugee ak ba muy doon ras pàcc ñu koy xont alalu borom barke mooy lan tamit borom barke mooy bu dee ba am le poids peese na xool poids wala mu jur doom yi ko commencé di teral mu wér nampalatul tollatul <coughs> bi moom di ñëw mu commencé noppalu am na ay goro am ñoo xam bu ñu tolloo foofu war day day juddu boo amee ay garab mais fekk nga nekk mag mag foofu mag dëgg la. alal borom barke même bu nu amul goro sax peut être seen i doom jekku na wala. toll nañ benn niveau jéggi na gaal. jéggi na gaal dafa xalaat ñu naan ay alal borom barke il faut ngeen dégg. dafa nga gis ay direen yi yu booy booylu. waaw wax nga kër ga. parce que tegatuñ ko fenn. xam nga non c'est xam nga Omar fan ki nga xam da nga ko fayal ba mu toll. ba mu toll ci yenn bi niveau am xaalis bàyyi la ñëwagut ci mos yow wasi nga ba wasi naa. xam nga tey jii xam na fi mu toll bay liggéey. waaw xala xam nga fi mu toll bay liggéey fi mu toll bay ak fii fi ñuy tàmbalee liggéey liggéey du ñu teral fii sunu sunu réew. jigéen ji daa am benn âge bi muy toll pour nekk ci nivo boobu yu bari day daje ci moom. Mhm. day fekk nampal di commencé di jeex ci moom yu bari daje ci moom léegi taaram dëgg nag di dikk Mhm. am na jigéen ñoo xam bu ñu ko tolloo. Mhm. alalu borom barke la ñuy doon. Mhm. maanaam dañuy fàtte fi ñu jugee fàtte seen borom. xanaa borom barke mooy ku yor. ku yor waaw yàlla may alal. waaw kuy kuy takkoo lay wax moom. yaa ngi gis. yaa ngi ca takkoo. beneen bi ci topp nga gis. Euh, femmes yoo xam ne. non non alors alors borom barke la ñuy doon maanaam xoolatuñ seen jëkkër. waa léegi wor mi ngi tamit wor wor mi ngi wor mi ngi jur loolu nag. li koy li koy li koy indi yenn saay waaw mais daf ci am góor ñoo xam ne dañuy am soxna mais jombale ko seen bopp. dëgg la am na góor ñoo xam ne day am soxna jombale ko seen bopp te jigéen ñaare nga ci. dama la koy wax la bu tiitee mu na lu amul waaye bu jekkoo mun na wor euh, day fekk day fekk yow dëgg fi dali kii ci kaawu jekk wor la ne waaw li mu wax na li nga li hmm, foofu la kii nekk maanaam ku jekk wor waaw loolu mooy question bi nga posé waaw waaw kan kan moo ko posé moom la di posé quoi la di di posé moo bu may analyser du mu déglu man fa may daanele moo jara déglu taj ga ci tëgg bi eh. taj mu jeex kon mbasaa mbasaa lay doon ay ca suka gintee <laughs> yow dangaa jaar na ne au lieu dem gintee yeg gi nga dem suka waxal euh, xam nga tey bu fekkee da nga nekk ak sa borom kër <laughs> non saa mën la bëgg. day yàq émission saa mën la bëgg. yow des na tur bi dootoo yéeg. ci cërën ndawal la xam nga kii dafa ñëw kii dafa am wax lu am solo kii ndax danga ni. nit koo xam ne sa boroom kër dala dala doon jàng dala doon fayal ngay jàng. nga de nga dem ba sa ku jigéen ki jékku bàyyi bëgg a bàyyi bëgg war. man damay wax ni ko kon fekk daa fekk dara lu baax am foo ndax nit bu fekkee da ngaa nekk ak sa borom kër mu lay dimbali te yàlla rek tax boo demee ba am mu tournel ci moom ndax ba muy metti yéen ñaar kese la kenn fekkul fa du ndey du bàyyi du kenn bu mettee sax kenn du ko yëg yow ko jigéen koy muñ donc yow bu demee ba muy dim moom ko góor ki di la dimbali soo amee tourné ko kenn du wor te booy wor wax dëgg yàlla bëgguma woon jigéen juy wor kon comme sa jëkkër di la dimbali ba ci yàgg nga yor fàtte ko yow sa jëkkër mën nga ko offrir loo xam ne boo amee boo demee ba am mën nga oto même bu ko amul mën ngaa wut yow sa alal dal ko joxal ko jox ko jëndal ko oto voilà dina non non non ah. am na jigéen ñu def déedéet ama bul wax loolu am nu jigéen ñoo xam duñ ko def amuñu boobu temps ah. parce que li ñu am dañ ko yéene seen borom kër gën bu ma wan temps bi te ah. temps bi yaa ko moom ñoom ñaar bu ma wan ñoom ñaar voilà ñoom ñaar euh, man de li ma wax dafa gàtt rek gis nañ fii comme cas yi ngeen wax. Mhm. ay euh, ñoo xamante ni seen doom tey mel nañ leen neex seen yaay seeni mbokk sëgg ci ñoom tas leen seen sëy ñu bañ taj leen gën a mën a. Mhm, sëy mhm. donc Kanta yow sa jëkkër di la jàppale xala. dafay jàng dong ah. sa jëkkër mën na lay jàppale ba nga xëy yàlla may la liggéey loolu la ñuy mm-hmm. war a wax mm-hmm. soit moo xam fayal na la jàng ba nga xëy njàng ma pare nga liggéey mm-hmm. soit euh, mu jàppale la ba nga xamante ni nga xëy yàlla may la nga am liggéey loolu yëpp mën nañ ko téye mais bu fekkee seq ko ku gore chaque jour dala koy naa jigéen mu ne ma man saabu bi may fóotee sax du ma ko jënd sama kër et pourtant day liggéey <laughs> <laughs> pourtant dafay liggéey dara du ko jënd këram ma ni bët na kër a koy jënd mais bët yi mbir mi lu ko lal ngor rek mu jeex gën taj mbasa mbasa mbasa déjà mais béti dama lay wax ni la góor ak jigéen ñoo ko yor billaay wallaay wa taala waaw mais ci cas bi ci cas bi dans ce waxu jigéen la eh, ñu wax mbasa mbasa yow di tëjal sinon nepaat moom du ngeen ko def. ay am problème waaw ñoo ko ñoo ko déggal. fii fi ñu ko tuddee neex na. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan ku ci nekk am naa am na lu ci war a wax dañ leen di bàyyi rek ngeen toog fi ngeen toog yeggali débat bi seen biir kër. li duuf si xaj nag bi yëpp eh. xajul si cin bi. donc euh, ah. waaw voilà. li duuf ci nag yëpp xajul ci cin yi dañ leen di bàyyi rek ngeen yeggali ko seen ay ca ajaratu biti nag damay jaar si tàggatoo euh, da borom Paris nee naa la pro yow maa lay ñaanal loo dund doyul doomu faat